ñu dem rajo Futur Média fekk fa Babacar Fall muy am gan bi Sidia Ndiaye moom ngeen di gis noonu ci écran bi secrétaire général fédération euh, générale des travailleurs du Sénégal Babacar RFM à rendez-vous tout à l'heure ak euh, ñi ñu féexal euh, ci kaso bi démb ñoom Guy Marius Sagna ak Assane Diouf ak Clédor en tant que ku jiite mbootaayu sandika saw njàngat ci gannaaw fitne keroog yeeg jàmm ji nga xam ni mi ngi mel ni mi ngi wéy di xàll yoonam euh, dal ñëw ci réew mi. waaw jërëjëf maa ngi profité occasion pour nuyu Ndiogo aussi bi nekk ci plateau bi euh, di leen masawu aussi parce que événement yi nga doon wax sànq amoon ngeen fi ay tolof tolof heureusement que tout s'est bien passé mais ci événement yi ak tournure yi mu jël actuellement nii apaisement bi defe naa ne vraiment c'est une très bonne chose ñuy ñaan ñun ñëpp pour que véritablement loolu wéy. parce que démocratie am na yoo xamante ne xeju fi démocratie comme jox nañu nit ñi possibilité exprimer wu jox nañu possibilité aussi exprimer wu donc ci médias yi exprimer wu partout ci le terrain mais aussi ñi koy sanctionner par des élections régulières donc je pense que occasion yooyu nag mooy permettre pour ñi nga xamante ne dañu bëgg a euh, diriger ñu diriger ak ñi nga xam ne dañu bëgg a opposer aussi ñu opposer donc je pense que Euh, jàmm ji moom vraiment ñu ngi rafetlu taxawaay kilifa diine yi nga xamante ne jàpp nañ ci ak société civile ak ñëpp pour que véritablement jàmm dellu si xel yi dellu si pour que ñu xam ne dëkk bi ñoo ko bokk Sénégal suñu réew la ñu góorgóorlu ba li fi amoon bon c'est un incident de parcours parfois on a constaté qu'il y a des ay euh, ci ay décennies une fois par dix ans ou par cinq ans dina am ay problème en général si à la suite des des des événements électoraux la doon am mais cette fois-ci du événement électoraux yi dafa ñëw tout d'un mais je pense que comme ça se tasse c'est pas la peine de remuer le couteau dans la plaie. Mhm. mais mais euh, mais mais mi ngi lépp a ngi tukkee ci manifester yi fi amoon euh, manifester yooyu euh, ni nga ko tàmbalee junju sax askan wi da cee doon profité wane métti tam en tant que syndicaliste ban jàngat ngeen ci def ak solution yi njiitu réew mi indi ne moom la moom la teg pour saafara ko. waaw xam nga ne boo xoolee même en dehors du Sénégal bitim réew sax amoon na bi ñu commencé euh, xam nga mbas bi mu ñëwee dafa fekk ñu indi ay confinement lu ñu leen confinement parce que virus bi kenn gisu ko donc mu ngi law di di rey nit maa ngi dégg ay Brésil trois cent mille morts extra États-Unis donc nit ñi bi ñu leen imposé yenn mesures yi confinement bi euh, mën dañu ko supporter ba tax na yenn yenn secteurs yi par exemple comme secteur informel ñi nga xam ne dañuy liggéey guddi aussi ñoom ay ay problème ñooñu ñëpp defe naa ne dañuy cumuler ah frustration yoo xamante ne euh, moo exprimé wu ci événement yi ñu gis loolu lu bëri ci loolu la parce que finalement les gens yaa naa kii ne croient pas que virus bi am na parce que gisuñu ko mais virus baa ngi law dañ ñëpp gis nañ ne y a des ah, même de personnalités sont sont nous son quittés donc je crois que frustration yi ak yoo xamante ne aussi euh, ñu ngi doon euh, population bi seen bopp mënu ci woon exprimer wu parce que boo xoolee jeunesse bi football arène yi dañ ji nañ ko arrêté woon football bi match amatul en tout cas boo match amee aussi doo dem stade donc loolu yëpp ay kii la yoo xamante ne nga war a toog sa kër rek confiné wu presque c'est comme de la prison ko donc je crois que critères yooyu sociologue yu bëri nañ ko analyser pour ñu xam ne véritablement frustration yi fa la commencé jóge boo moo fekk nag une boo xamante ne euh, politique boo xamante ne bon politiciens yi bu ñu ci dugalee seen loxo rek xam nga rek moom ampleur bi mu am mais je pense que véritablement euh, ñun ñëpp war nañu analyser bu baax. parce que li ci loolu sax président de la république euh, bi mu génnee li mu xam ne moo di ne dégg na ndaw ñi dégg na seen i tawat dañ ci wut saafara ci loolu mu tëral programme jëm ci xëyum ndaw ñu programme bu toll ci 350 milliards ndax gis nga ne loolu dina saafara. jafe-jafe xëy ndaw ñu ci réew mi. waaw je pense que boo fekkente ne comme il l'a si bien dit dégg na ne ñu génne aussi ay moyens pour ñu liggéey mais il faut aussi que en amont ñuy associer xale yi parce que aussi mënuñu nekk nekk à un niveau élevé bëgg a régler problème yi ci suuf te waxuloo ak ndaw ñi aussi parce que il faut ñu xam ñoom lan lañ bëgg il faut que aussi ñu mën a analyser hein parce que fii c'est pas la première fois ñu def des politiques pour la jeunesse problème qui est de la jeunesse, l'éruption de la jeunesse sur la scène politique. Donc c'est le même problème qui continue. Mais il y a eu des programmes qui ont été mis en œuvre, nous avons des techniques pour jeunes. Mais ce que nous avons créer des structures qui ont été des millions, ay crédits, jàppale xale yi pour ñu créer ay entreprise mais te commencé ñu par le commencement maanaam formation parce que du ñëpp ñëpp a mën a nekk entrepreneur entrepreneur dañ ko jàng donc business aussi am na ñoo xam ne ils ont des prédispositions pour def business mais am na ñoo xam ne mënuñu ko donc je crois que loolu aussi war nañu xoolaat bu baax qu'est-ce qui a fait que jusqu'à présent parce que moyen amoon na il y a des programmes qui ont déroulé qui ont démarré pourquoi ça n'a pas abouti à ce puisse régler le problème des jeunes loolu aussi ñu xool ko mais problème du question aussi euh, euh, parce que bon secteur yi nga xamante ne war dañu war a gën a dugal xale yi bu ñu ko analyser woon bu baax muy agriculture mu yeneen maraîchage ak yeneen ah, ah bu fekkente ne ñoom analyser wuñu avec les jeunes ce qu'ils veulent on va avoir des problèmes parce que tant defuñu loolu rek mën nga dugal ay milliards mais milliards bi day nax saay donc que vraiment war nañu gën a associer yi à la base ñu xool ban format la ñuy def mu bañ nekk rek structure bi taxaw na da ngay am sa projet nga ñëw taxaw nga ne j'ai besoin de dix millions ñu jox la dix millions nga dem te dii millions yi du ko contrôler fan la dem y a pas bu dee amul encadrement xaalis bi day nax saay Parce que c'est ça, la difficulté. Mais je pense que c'est une très bonne chose déjà que le chef l'État décide dégager ay moyens pour que véritablement ñu mën a jàppale xale yi ñu def ko extra parce que euh, boo xoolee taux de population bi jeune jeune bi les jeunes la par exemple seen niveau de représentation au niveau de la population globale ñoom ñoo fi nekk l'avenir c'est eux donc on doit réfléchir avec eux mais pas pour eux donc bu ko boo ko defee ñu mën a ñoom seet yan secteur lañ leen mën a pousse pour que ñoom ñu mën a développer aujourd'hui yàlla numérique ñëpp xam nañ ne tey mën nga toog secteur avec le télétravail et tout ça nos pays sont en retard ah tey tu peux la maison donc yooyu yëpp il faut que ñu xool naka la ñuy gën a développer accès ah au numérique bu ko defee je pense qu'on pourra trouver des, des, solutions mais aussi en mettant l'accent sur la formation professionnelle aussi parce que Les gens ne sont pas recyclés et l'État ne peut pas créer des emplois pour tout le monde. Donc je crois que aussi en amont ñu vraiment mettre l'accent sur la formation professionnelle pour que xale yi mën a véritablement bu ñu jëlee ñu opérationnel mën a liggéey. léegi président Macky Sall tey 25 euh, mars si la def euh, juróom-ñeenti at euh, ci bopp réewum Sénégal yow en tant que syndicaliste au plan social ban bilan ngay def ci liggéeyam. bon au plan social y a des hauts et des bas, c'est-à-dire qu'il y a des acquis comme il y a des difficultés jusqu'à présent. Nous, nous nageons en, en plein de difficultés dans beaucoup d'autres secteurs. am na secteurs yoo xamante ne mais boo xoolee boo xool les analyser c'est que la demande sociale elle est toujours insatisfaite elle parce que parfois on va jusqu'au bout bu crise amee ñu jéem a calmer crise bi mais on ne va pas jusqu'au fond des choses pour ça dañ jël a des difficultés donc je crois que côté boobu aussi war nañu xoolaat bu baax comme ni ñu ko waxee ci dans le cadre moo on a mis des mécanismes de dialogue social et cetera et cetera est-ce que cela a été opérationnel pour véritablement anticiper sur mais le problème que nous avons noté ñun de manière globale en tant acteur sociaux c'est que nous nous dañu déglu ba ñu dem ci crise da nga déposé préavis par exemple boo xoolee préavis bi dañuy bay bu mu daw ba mu ba mu de deux ou trois jours fekk yow sa base bi mobilisé ñu ne la allez kaay négociation donc c'est une façon de calmer le jeu mais on règle pas les problèmes et ce qui fait que problème yi day répété continuer waat et cetera donc je crois que c'est ça la difficulté ma jël le cas des collectivités locales ou la fonction publique locale depuis la ñu voté loi bi mais ba tey mënuñu pare y a le les les décrets deux décrets qui restent on attend on attend jusqu'à quand alors qu'il y a eu des décrets qui sont passés ici hein, en urgence donc ça veut dire que quand l'État a besoin de secteurs secteurs secteurs vitaux day jël rapidement des mesures d'urgence même ay lois yoo xamante ne ñëw nañ fi jaar mais pour la fonction publique locale on est on est on est au point de départ deux décrets ba léegi c'est vrai que transmettre nañu fu ñu ko war a transmettre mais nous nous pensons que c'est un peu lent. Mhm. vraiment on doit pouvoir régler c'est pas possible que ci loolu la ñuy des euh, euh, Sidya Ndiaye ndax. Euh, Euh, ñiy liggéey ci collectivité territoriales yi muy maire yi ak conseils départementaux yi euh, sa mbootaayu syndicat bi am na ñu bëri ci la ñu ci la ñu jokk ci lañu ñu bokk. Euh, élection locale yi dégg nga ko neen randal nañ ko ba deux mille vingt deux waaye balañ caa yegg si du ñàkk ni yeesal yi nguur gi bëgg dana ko def lu ci mel nii dindi fi li ñuy wax ville de Dakar mairie bu mag bi muy ville de Dakar bu Pikine Guédiawaye Tëngéej. ak ak Thiès euh, yéen lan mooy seen gis-gis ci loola ñu bëgg a supprimer dindi ville de Dakar ak yeneen ville yooyu ñu tudd sànq. waaw xam nga euh, man côté local rek laa mos a liggéey bi ma génnee université man maa choisi ne damay dem ville bi may dem sax nit ñi dañ ma ne yow lay wuti foofu ah nga jógee administration euh, EBAD second cycle war a man maa tànn ne damay dem parce que amuloon service archive moom la damay. maire de Dakar à l'époque Mamadou Diop dafa ma woo pour ma bi ma ñëwee nag moom mu def une politique de recrutement des cadres pour que ville bi dem mais bi ñu ñëwee euh, commencé liggéey après y a eu un des réformes en ñu créé la ville bi ñu créé ville ñu commencé liggéey arrondissement yi nekk fii et cetera sur le modèle de la France un peu parce qu'il y les arrondissements et la ville alors bi ñu créé ñu commencé liggéey donc ville en fait parce que on avait à Euh, ñu jox des moyens au niveau de la ville mais les arrondissements aussi étaient là mais les arrondissements étaient un peu dépendants très dépendants d'ailleurs de la ville alors <clears throat> ñuy doxal di doxal ñu ñëw ñu ne acte trois acte trois xam ngeen sama position man j'étais tout à fait contre parce que ñu ne toutes les collectivités sont d'égale dignité on va les ériger tous en commune communalisation universelle amul fenn fii rek lañ laa ko gis c'est pas de le faire la suppression des régions Parce que les régions avaient commencé à se développer. Les régions avaient commencé à régler beaucoup de ñu jékki-jékki rek dañ ko supprimer sans ñu def ce qu'on appelle des phases de test parce que balaa ngay def à grande échelle da nga war a xool nooy réforme mais ñu di ñu mais dans le cadre de cette réforme de l'acte 3 ce qu'ils n'ont pas fait c'est qu'au niveau de la ville des grandes villes là les communes de plein exercice ils n'ont pas le courage de façon viable de économiquement je parle parce que dans les. maanaam li nga bëgg a mooy lan. maanaam ñoom bi ñuy supprimer bi ñuy defee euh, ville yi les communes d'arrondissement ñu érigé leen commune dañu ne woon danañ jël ay Ndakaaru par exemple warul am plus de warul am ay seize communes d'arrondissement dafa war ay cinq grandes communes nga xam ne am nañ capacité financière pour fonctionner mais defuñu ko dañuy bay noonu rek te à l'époque ñoom ñoo doon critiquer ne. Euh, parti socialiste coordination bi moom la ñu jëloon ñu érigé ko en commune d'arrondissement donc on devait revoir comment structurer parce que c'est les grands ensembles qui sont viables amoon naa ñun on a eu des problèmes avec l'acte 3 amoon naa ay communes yoo xam ne pour fay salaire état bi moo obligé ñëw au secours et jusqu'à présent nous avons des problèmes parce que y a des communes yoo xam ne mënuñu supporter mais euh, si askan wi gisuñ seen bopp ci melokaan bu ñu mënut a jox gox-goxaat yi ci wàllu collectivité territoriale muy maire ak euh, commune bu ndaw ak bu mag askan wi dañu am jafe-jafe gis seen bopp ci njëriñu euh, communes yeeg euh, conseil départementaux yi lu dul ay recrutement personnel di fay mais ci dundun askan wi wax dëgg yàlla xëy na yaa ñu gën a mieux placé pour wax ñu ni askan wi gisu ci gisu boppam. effectivement ce que je disais que. Euh, bi ñuy de bi ñuy réformer l'acte trois ñu koy def j'ai eu l'impression que c'était des trucs politiques parce que ni ñu war a engagé débat bi defuñu ko ni ñu ko war waree ba ñuy jël ay mesures ne dañuy de ériger telle telle commune finalement commune yoo xamante ni n'a pas de viabilité économique état bi moo la ñëw en na parce que boo jël département parce que tey on parle de supprimer de la ville de Dakar département lañ fi teg mais département ba léegi amul ressource propre ba léegi donc ban moyen la ñuy jël pour ñu ñoo ñu mën a fonctionner donc finalement on a l'impression qu'on fait des taille des on, on taille des costumes pour les gens mais on ne regarde pas l'intérêt des, des populations donc je crois que réforme bi ñëpp la ñu war a dañu war a def débat boo xamante ne dina permettre askan bi ji seen bopp comme c'est local ñii seen localité yi war nañ véritablement mën a gën a impliqué wu. léegi pour dellu ci laaj Babacar ndax ànd nga. ak ci ñu supprimer ville yi daf koy département. non pense que c'est un si bon parce que villes aussi tolluwuñu il y a des villes de moins important il y a des villes comme la parce que Dakar le problème de Dakar c'est que Dakar c'est la capitale du Sénégal pourquoi à Paris il y a une ville et que ça marche très bien et que a au Sénégal on ne peut une ville comme ville de Dakar ville capitale voilà la question dire que le truc de la ville est virtuel mais le département est virtuel aussi Le département n'a pas de territoire. Le département il a des communes. Donc yooyu c'est ay débat yoo xamante ne il faut que ñu teg ci table bi des spécialistes de la décentralisation toog ñu mën a waxtaan mais tant que defuñu loolu on fait de la politique politicienne les structures ay mairie mairie yi nga xamante ne dañ leen créer dafay nekk ay officines politiques or développement local parce que état bi dafa transférer un certain nombre de compétences une de compétences. mais moom laa lay wax. ah mais mais mairie yi amul njëriñ. Ah. lu dul recruter ay militants. voilà. donc à la boo xoolee le travail se résume à quoi enlever les ordures éclairage public sax mënuñu ko état moo moo ñëw ànd na point mënuñu ko donc normalement selon la loi communes yooyu amatuñu waruñu dañu war disparaître parce que boo dee amuloo capacité financière pendant une certaine période tu n'es plus une commune mais loolu loolu ñëpp xam nañ ko donc véritablement war nañu xoolaat décentralisation bi dafa am problème dafa am problème tant que population yi gisuñu seen bopp yu ñu leen c'est vrai que dañu élire ay exécutif locaux mu assemblée locale tout ça mais il pas de ressources il pas de mesures d'accompagnement l'État décentralisé mais n'a pas donné assez de moyens à ces communes c'est vrai que yaay ils vont dire que il y a bi ci boppam mooy déroulé ay programme boppam ci communes yi. mënuñu defal seen bopp dara. c'est ça mënuñu defal seen bopp amul sens kon. amul sens donc il y a yoo xamante ne tey tey tey tey boo demee évoluer parce que est-ce que la commune va et cetera or tey développement urbain boo xoolee tey moom le problème de l' emploi des jeunes am na ñoo xamante ne bu fekkee ne on était organisé au niveau des am na yoo mën nañu ko régler bañ a nekk des recrutements politiciens mu nekk des recrutements yoo xam ay ressources humaines lañu parce que tey boo transféré ay compétences la la gestion urbaine ça demande des mais mënoo recruter ay ñoom nañu toog suba ba ngoon duñu doo leen jox benn charge da ngay dem benn collectivité locale fekk fa ñu recruter huit benn oto moo fa nekk benn loolu du gâchis loolu lan lañ koy tuddee donc y a des difficultés yoo ne tant que teguñu ko ci difficulté yooyu lan mooy saafara yéen li nga xalaat ne moom mooy saafara ci wàllu décentralisation beeg lan la ñu war a indi ni coppite ngir saafara euh, problème yooyu. problème bi mooy dañu transférer ay compétences dañu war a transférer des moyens équivalents à ça pour que ñoom ñu mën a liggéey jox leen aussi que le problème de recrutement là vraiment ñu teg ko table bi aussi mu nekk des compétences réelles dont la ville a besoin. pas de de di parce que j'ai fait une campagne électorale avec tel et tel damay ñëw ma recruter leen promettre leen moi j'ai des gens des responsables de département kii me disent ñun fii suñu localité amul usine amul société amul dara jeunes yi il faut ñu recruter leen il faut qu'on les mette là-bas qu'ils travaillent ou pas qu'on les recrute bon nous on est on n'est pas hein une fois si vous voulez les licencier on sera là <laughs> ils n'ont pas demandé à être là si vous qui les avez recrutés si vous voulez recruter les gens en dans des conditions régulières ngeen bëgg leen dàq duñ ko dangu c'est clair mais bu fekkente ne en amont y avait une poli amoon na politique boo xamante ne dina permettre ñu xool les gens les collectivités locales selon les compétences selon les besoins de ces localités là ñu def ko mais tey gis ngeen problème yu am peut-être y a euh, les inondations ça va revenir dans quelques mois Kër sa fii gisoon gàll la ñuy doon jël hivernage bi ñëw na on est au quel mois est-ce que les gens seront en mesure en capacité de régler ces questions-là voilà moo tax parfois bu problème amee population duñ ci seen bopp la mairie se résume à quoi comme il l'a dit bon c'est des officines où on recrute par exemple du personnel hein, on met du personnel là bon ils font des missions de mais pour revenir à la ville de Dakar ce qui est important c'est que pour la ville il faut ñu poser débat bi les villes qu'ils nañ ko teg ci table ñu def débat c'est pas une personne qui doit décider qu'on doit supprimer les te jox la fi argument parce que argument yi ma dégg man ça m'a pas convaincu c'est des arguments fallacieux ñu ne ville j'ai entendu même je vais les citer le domaine Ismaël Madior Fall dire la ville a beaucoup de moyens mais n'a pas de charge monsieur Ismaël Madior Fall venez à la ville ville nga xool ndax amuñu charge li di def ci bourse scolaire que ce que nous les, la ville donne en termes de bourse scolaire pour aider les bu ñëwoon rek mu xool bourse rek nga dem éclairage public nga dem voir yi nga ne loolu amul charge xam nga yooyu ay waxu caaxaan yoo xam ne dañ ko a bay parce que véritablement dañu jël ville dañ ko ciblé pour détruire ko simplement parce que dañ ko war a détruire il y a des questions politiques qui qui qui sont à la qui ne veulent pas dire. Hmm, jërëjëf ça la njiital mbootaayu syndicat bi di FGTS jaajëfalaat Ndiogou Diène. jërë ngeen jëf mbokk yi ñu ngi ziar Astou Mbéne nag gaa yëpp ci geneen wàll gi yéen doog jàmm